seen bu mag bu nga xamante ni moo xew ci jamono depuis bu mu sosoo ba léegi mosu taay di dox ci leen neex ngir matale seeni yaakaar 2018 di at mu bees sunu TV nag ñëw na si li nga xamante ni moo nekk ay programme yu bees sunu TV taxawal na émission bu nga xamante ni ñu doppee ko talent wane sa talent wane sa talent nag suñ ko waxee dañuy daal di wàcc terrain bi fekk ñi nga xamante ni ñoo nekk ay artistes si programme yu mucc ayub ñu jëlal leen ko en direct dina wàllum caméra wàllum monteur suñu TV lépp luy programme dana accompagner ñi nga xamante ñoo nekk des artistes si émission bu mag boobu wane sa talent suñu TV yemul foofu taxawal na émission bu am solo bii di religion religion nag suñ ko waxee dana nekk émission boo xamante ni dañ koy wax émission diine ak jamono lépp lu nga xamante ni si wàllum diine la ak wàllum jamono suñu TV dana leen ko faram fàcceel ba mu leer suñu TV taxawal na émission bu yànj bii di ndaje ndajee nag suñ ko waxee dañuy permettre ñi nga xamante ñoo nekk doomi localité bi ñu def li nga xamante moo nekk waxtaan pelloo jox sa morom mu wax. kenn ku ci nekk addu ngir ñu développer seen localité gars yi revue de revue de presse yi nga xamante ni da nga koy déglu xam lu xew si senegal waaye dañ si ànd ak xol bu neex ngay ree ba kontaan suñu TV nag nekk na télévision boo xamante ni bokk ci yomb na lool soo bëggee abonné abonné wu si suñu TV du la ñëwee benn dërëm demal fu nga xamante ni mooy diwaanu Google nga tappe YouTube. nga bind suñu TV di nga am lépp information yi nga xamante ni moo nekk foofu waaye nag nga def fu nga xamante ni ma nekk à gauche da nga gis benn bind bu xonq bu ñu bind si abonné foofu rek ngay daal di abonné bokk si li nga xamante ni moo nekk abonnement suñu TV boobu waaye à ta da nga gis benn cloche cloche boobu nag da koy appuyer lépp loo xamante ni wàllu vidéo la suñu TV suñ ko amalee rek danga koy am nga am information yu wér te mbokk yi bokk suñu TV nag yomb na abonneel nga inscrire jàppale télévision bu nga xamante ni mu nekk suñu TV ngir mën a jëm sa kanam jërë ngeen jëf. the priests argue over good.